asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi nuyu nañ leen lu bëri niñ koy defee saa su nekk ci seen émission zap série namoon nañ leen trop nag tey nag seen rubrique revue de série indi leen analyse et critique des séries ñu tànn ci quelques séries yoo xam ne mun nañ koo analyser ak critiquer ñu tàmbale ko ak série boobu nga xam ne moom mooy wiiri wiiri ndax wiiri wiiri jamono ji dañoo gis ne seen taux d'audience dafa baissé de trop lan moo ko waral sénégalais yi ci boppam ñoo dem ba réer complètement ndax changement bi dafa brusque jëluñu seen temps préparer sénégalais yi ñu dem de wiiri wiiri à l'alia ñu ne déet waaye jékki-jékki sumbulu yeewaat ci comment bi ce qui veut que ñu indilaat ñu beneen wiiri wiiri bu njëkk bi sénégalais yi nag dem ba mënatuñ koo accepter ndax waa wiiri wiiri bu ñu jëloon seen temps au moins préparer sénégalais yi en commençant par sumbulu bu yeewoo laajte lan moom ma dal fan laa nekk waaye yeewu rek jékki-jékki di laajte ana Modibo beneen critique bu ñu mën a def ci wiiri wiiri moom mooy épisode 66 épisode 66 moom ngeen baal ma mais c'est nul

Pod et Marichou analyse ak critique bi ñu ci mën a def moom mooy problème mu franc-maçonnerie bi moom la ñuy soulever ndax gis nañ ne waa Pod et Marichou kat ñu ñi ñu bëgg a imposer imposer problème mu franc ci Sénégal te ku ne Sénégal ne pays de l'islam may laaj ban impact la mun a am ci suñu jeunesse beneen cas bu ñuy attaqué moom mooy problème côté acteur côté acteur nag bu ñu jëlee kaawu Chabi nga xam ne présence am wala absence am jamono ji apporté wul dara série bi sabi bu sabi bu ñu première saison bi ak deuxième saison bi elle était bien partie mais malheureusement troisième saison bi wax dëgg yàlla présence am apporté wul dara série bi Benen cas bu ñu mën a euh, citer aussi moom le cas de Souadou dañoo ñëw rek imposer ñu Souadou soit du kenn xamul ban rôle la joue jouer importance am ken xamuko ba tay bu absenté wala bu présenté aussi tout c'est toujours la même chose même routine bi à chaque fois bu ñu jógee ci côté acteur ñu dem ci propos injurieux yi nga xamné ne acteur Pod et Marichou vous pouvez koy tenir à chaque fois bien vrai que le cinéma avance, mais ça ne veut pas dire que nous devons perdre suñu valeur on est au Sénégal te série yu bëri mag ñi dañ koy sétane xalé dañ koy sétane ma leen di ñaan ñu ciy baye xel à chaque fois ta may jéxal nak duma def lu souhaiter joyeux anniversaire sama benn xarit sama doomu ndey waaw euh, kinne siis madame Ndaw yaay bébé aram tey la anniversaire am di ko souhaiter la totale keneen ku may remercier aussi moom mooy Aminata Sow sama doomu ndey boobu Sow pour la arde borom nag ak meew yi moo ma génnee fii tey ci robe bi xalifa jëlal sama robe nii rek la def ne ma Khadija solal dem defi émission moom nag yu baax yi ci lay dox ku ko bëgg a jot da nga koy woo ci vingt 726 48 63 mu ñawal ci baax yu dakk yi sax jaa ngeen jëf yéen mbokk internet yi jox leen rendez-vous très prochainement ci seen beneen numéro Zap Série